dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar mu mel ni fépp ci àdduna bi sénégalais yi ñu ngi wane seen naqar ak seen ci li nga xam ni moo doon xew jamono yi ñu weesu ci réewum Sénégal manifestation boo xam ne am na ci réewum Suisse dox ñaxtu boo xam ni place de nations la daal di jeexee. la bi tali yamb di ci xamle ne ñoom ñooñee doon def marche bi dañ leen encadré ci anam bu mucc ayib ba seen dox ñaxtu amal ko te amuñ ci benn jafe-jafe mu fay profito di wane li nga xam ni moom moo di liberté d'expression et de manifestation mel ni nag sénégalais de l'extérieur yi li leen tax a jug mooy fexe ba àdduna wërngal képp xam lan mooy xew ci réewum Sénégal ngir ñu daal di ciy jóg waaye itam dénoncé li nga xam ni ci ëpp ci sénégalais yi moom lañ jàpp ne président Macky Sall da koo bëgg a def muy wàllum troisième mandat AGT News partout dans le monde les sénégalais de organise des manifestations pour dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Nathalie Yamb avec sa publication, elle qui a participé à une manifestation qui a eu lieu en Suisse, a applaudi les forces de défense et de sécurité qui les ont accompagnés, scortés pour qu'ils fassent valoir leur droit de manifester. L'objectif de ces manifestations est de faire en sorte que le monde entier puisse savoir ce qui se passe au Sénégal et de dénoncer une probable troisième candidature du président Macky Sall. Dernier ne a dit qu'il ne va répondre ni oui ni non à la question. L'heure est au travail selon le président Macky Sall. Tous les Sénégalais s'impatientent de savoir quelle sera sa réponse. AGT News.